asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gars yi ziar naa leen bu baax di ñaan ngeen partager kay na boo leen partager tuuti rek incha allahu rabbi message bi dina jàll ba yegg fi ñu bëgg mu yegg euh, defe naa aussi boo leen gisee ci bind-bind yi ñu ngi leen dine ne Sonko est constant xam nga ndeysaan waaju baax ji mu sell mi mu jub mi dafa am loo xam ne dañ ko ko xamee woon mooy kàddu méngoo ak jëf ndax moom ci boppam loolu la ñuy wax toujours nee nañu discours bi yomb na waaye parcours démb nag gis naa lu bees maanaam les dialogueurs qui disaient que état dañ koy jaloge ñoom ci seen bopp dellu nañu ginnaaw demuñu ci dialogue ba ci waaja homme d'état ba homme d'état bu bu euh, bu njool ba xam nga moi y a quelque chose qui m'intrigue chez les sénégalais dafa am lu may intriguer toujours ci sénégalais yi sénégalais on est parmi les plus intelligents au monde ñun yàlla dafa def ñun bokk nañu ci ñi gën a muus ci àdduna bi waaye dafa am loo xam ne dama bëgg ngeen xam ko bu ñuy màgget comme bu ñuy màgget suñu xel yi maanaam suñu yuur yi bu ñuy màgget dañuy naax donc démb boo xoolee ci dialogue ba daanaka ñu bari ñu dañoo naax ay Ahmed eh, ay eh, Ahmed Khalifa Niass moom ay numéro téléphone ko fa yóbbu woon moom caga moom daa demoon ci dialogue bi pour daje fa ay jigéen jël ay numéro téléphone fii jël ay numéro téléphone fële eh, suñu grand sëriñ de Dakar yi ñoom dañu ñoom yooyu daf leen di neex parce que xam nga avant da daan am ay ay ay xibaar pour ñu mën a wone grand bubu yu mag yi donc démb ndeysaan ñoom it goome nañu garam bu buy ba mel ni ay kàkkataar ñëw taxaw ñoom maanaam kenn ku nekk ci yow daal fa nga mën ñëw nga wane nga ko euh, ba bugaan daw na ndeysaan saa njoogu laa gis tey mu def benn euh, intervention bu pertinente mu ne xale yi ñoo jàpp réseau bi xale yi ñoo jàpp réseau bi est-ce comprendre ngeen fa xale yi ñoo jàpp réseau gis nga réseau bi xale yi ko jàpp xale yi lu leen neex ngay wax lu leen neexul doo ko wax te ils ne sont pas des dictateurs xam nga xale yi dañ leen yàgg nax dañ leen yàgg nax dañ leen yàgg nax de xale yi dañ leen yàgg nax ñu dem ba un moment donné ñu yeew léegi dama bëgg a xam pourquoi ci turu lan au nom de quoi ñu toog ne forcé Ousmane Sonko day jaloge jaloge na wax na yónnee na nit dem na ci moom woote na nit woo na ko Ousmane Sonko def na Ousmane Sonko wax na au nom de quoi lan ngeen di jéem a prouver qu'est-ce que vous essayez à prouver mooy ñun ñëpp benn lañu ba léegi yéen ci loolu ngeen nekk da ngeen bëgg a prouver Sénégalais yi ne. on est tous pareils maanaam ñun ñëpp benn lañu comme ñun ñëpp ay sàcc lañu ñun ñëpp ay dóorkatu marto lañu ñun ñëpp ay diilkat lañu ñun ñëpp ay fenkat lañu loolu ngeen bëgg a prouver wel peine perdue encore une fois parce que dinaa leen wax dara xam nga ñun ñi ne bitim réew yàlla ba mu ñu baaxee ñu ñëw ci combat bi dañ fi indaale xel te ñun cohérence la ñuy demee dañu déglu mag Macky Sall bu baax maanaam euh, tubaab bi dafa ne on ne vouloir la chose et son contraire déglu leen ma bu baax tubaab dafa ne mënuloo bëgg mbir ak safaanam une chose et son contraire mooy yow new bëgguloo woon nit ñi ñu waxtaan te waxtaan mooy jur résultat waaye yow laataa nit nii di waxtaan nga ne yow jël nga dogal ba pare xam nga boo leen dégloo Macky Sall ci ay waxam nee na sénégalais yi kaay leen ñu jalogee dat kaay leen ñu dialogué li ñu war a def réew mi nangam nangam waaye moom Macky Sall nee na leen du tëgg élection fii ak euh, ba balaa hivernage lay tëgg élection du ko tëgg fii ak 2 avril moom nee na du tëgg élection fii ak 2 avril Macky Sall moom maintenant Macky sàll bi aussi nee na ngeen déglu ma bu baax nee na jël na dogal. ne incha allahu rabbi suba conseil de ministre nee na moom bindoon na bataaxal maanaam loi boo xam ne ba pare <coughs> loi dem na dem nasti la da koy jàllale assemblée nationale par force lii la Macky Sall wax lii la Macky Sall wax de non may ma tuuti mm. lii la Macky Sall wax lii la Macky Sall wax lii la Macky nee na moom bind na projet de loi jël na projet de loi jël na dogal ba pare ne député yi dañuy dem assemblée nationale passer ko loi d'amnistie loi boo xam ne moom nee na day jéggal ñëpp maanaam moom président de la république bu leen kenn nax nag am na coobare ba bu leen kenn nax président de la république am na capacité bi waaye seulement amul capacité bi moment yu mel nii maanaam mënuloo jàpp doomu aadama yi di leen tooñ di leen tëj di leen tijji di leen gaañ di leen rey di jooyloo yaay yi di tas sëy di tas kër yi yàq àdduna nit ñi yëpp après même doomu aadama yooyu ndeysaan nga ne leen baal naa leen am na ci ñoo xam ne Macky Sall est-ce que bëggati nañu sax génn kaso est-ce que bëgg nañu nga baal leen ndax seen àdduna liñ ci liggéeyoon yëpp yàq nga ko Macky Sall nee na jël na décision ne day baal ñëpp par force mu génnee leen kaso donc damay ne sénégalais yi rek man sama bopp moo tax may wax voilà xam nga nit moom bu ñuy wax toujours manoo waxal ñëpp on ne la voix des sans voix man nga jox ñëpp nag sa avis sa avis sa xalaat man nga ko jox ñëpp waaye je vais vous dire les avis que j'ai reçus aujourd'hui dinaa leen jox avis yi ma jot dégg ngeen ah les avis que j'ai reçus par exemple euh, di ngeen gis ci benn commentaire bu fameux si on suit sa logique sur le fait qu'il a consulté Ousmane Sonko et Karim pour avoir leur aval, pour leur rapport. Dans les faits, alors Karim a accepté et Sonko est resté dans ses principes. Parce que la loi votée à l'Assemblée nationale pour le report et le, prolongement du mandat de Maki a été votée par les députés de Karim et Macky Sall dans le désordre total et par contre sont les députés de Sonko qui ont attaqué cette loi au niveau du conseiller constitutionnel, ce qui a permis, à à, ce qui de l'invalider, même dans leurs mensonges et leurs manipulations, il prouvera que Sonko a des principes et n'est pas un leader sans même rendre compte, n'insultez pas l'intelligence des gens. pour ngeen xam ne sénégalais yëpp de tout bord yeewu nañu ñëpp xam nañ ne Sonko bokkul ci jalog bi ñëpp xam nañ ne Sonko il a été constant Sonko wootewul dialogue demul ci jalog doxul ci dialogue àdduna bi yëpp xam nañu lool malgré les cris waaye yaay yooyu Sonko ngi dialogué Sonko gi wax ak ñoom guddi waaw daaw guddi la waaw am na ku ko seeti am na nangam nangam Sonko nit la sëñ bi Cheikh Bara Dolly sax seeti na Sonko <coughs> mais lim ko tontu àdduna bi yëpp xam nañ ko donc Sonko nit la nit la de ñu bari mën nañ koo seet seeti du problème lan fay jële mooy problème da ngay gis seen waxkat yi ñu mel ni Cheikh Yérim Seck waaw am na waa ju jóge Mali am waa ju jóge fële waaw dem na ba gise na ak Sonko ñi ñuy wax ne ñoo dialogué ñi ñuy wax ne ñoo demoon du ñooñu waaw ñeneen la amul problème Cheikh billaay baal nañ baal nañ parce que yow sa baay daa fen ba violé sa sœur nax na sa sœur ba tëddee ko yow mii nga nga nga duula duula duula duula duul ba tëdd ñaata jigéen ci àdduna bi tey violé ñaata yow duul nga ba am ay mbir yoo xam ne ci sa ay ay ngénte ay bongomaan yoo xam ne Gabriel Kane Gabriel Kane tappalekat bi sax piégé na la ba dugal la ci ay guuta parce que sa takku suuf bi xaritu Gabriel Kane benn bakkan la France Gabriel kan moo génte sa doom li taxoon ñu tas sa sëy bi nga xam ne moom nga defoon ak suñu journaliste bi Astou Dione loolu naqar boobu mu ngi ci yow ba léegi parce que ndaw si da nga ko defoon ba nga ko takkee takku suuf ba biiral ko jël deux cent quatre vingt millions lebloo ko deux cent quatre vingt millions nga ko lebloo ndaw si jën de ko sa kër gi nekk Ngaparou sa kër gi nga ne fa ngay lekkee jën fa ngay toog bi ma nekkee sama kër gi Ngaparou lekk jën sa kër gi ngay lekkee jën yow Cheikh Yérim ndaw si nga takk-takk suuf lebloo ko deux cent quatre-vingts millions yàq àddunaam totalement bëgguma woon sax wax ci ndaw si parce que ndaw si nag ndeysaan après je me suis rendu compte que ku baax la sa kër gi nekk nga par nga ndaw si léegi bu ñu kiiyee am doom takk suuf la léegi bu ñu amee doom bu ñu ko def ngénte bu kenn yëg nga dem ci tudd bi tudd xale bi daw gaa yi indi bongo man indi coow vidéo yaa ngi fi bul fàtte ne yow même Cheikh mbila bi la bi Ousmane Sonko di inauguré livre am di def euh, mbiru livre am solution bi yow yaa fa toogoon ak même journaliste bii di may a Ndour la même la ngeen koy laaj ay waxu salafiste ak ay waxu boo jëlee réew mi màggal du fi amateeg lu ne ngeen indi ko bëgg koo jaxaseeg àddina il a été très cohérent il est resté dans sa logique il est resté direct tappale bu ne def ngeen ko ci àdduna bi ça n'a pas marché avec le président Ousmane Sonko il reste toujours toujours toujours laa la wax de le président Ousmane Sonko il est resté toujours constant il est resté constant ñu bëgg ngeen wax ñu suñu jouru élection au lieu ngeen am la am fayda mën a taxaw wax jom sénégalais yi la leen dese ci seen dund parce que defoon ngeen ko fi temps yële passé Tilo Oil en deux mille dix neuf cette fois si def ngeen ko Qatar Cheikh Yérim xam nga jour bi ngay génnee dossier Qatar bi dama lay jox benn révélation de taille jour bi ngay def révélation Qatar boobu fekk na police sénégalaise man maa leen di wax lii de Ousmane Tounkara dinaa leen indil tous les informations solis police sénégalaise booba découvrir na maanaam saisir na plus de trois tonne de cocaïne déglul ma de Cheikh Yérim trois tonnes de cocaïne trois tonnes ñetti tonnes cocaïne lu ko ëpp le police sénégalaise saisir xam nga loolu valeur bi ñaata la plus de mille milliards trois tonnes de cocaïne le police sénégalais saisir te cocaïne boobu ba léegi kenn xamul fan la nekk Cheikh Yérim keroog bi ngay génn ngeen di accuser Ousmane Sonko yaag député boobu nekk assemblée nationale man nee leen d'ailleurs nañu xool député boobu parce que beaucoup de vous sont des vendeurs de drogue député boobu dem leen ngeen xoolaat ko Cheikh Yérim keroog ba muy génn di wax ne Ousmane Sonko waa Qatar vingt millions de d'euros nangam vingt millions de dollars fekk ñu jàpp police sénégalaise jàpp trois virgule cinq tonnes de cocaïne soi-disant plus de mille milliards ndekete ñoom bi ñuy wax loolu li ñu bëggoon mooy nelawal xelu sénégalais yi ba xelu sénégalais yi bu mu dem ci trois virgule tonnes cinq tonnes de euh, cocaïne yooyu ndax général Moussa Fall moom xam nañu ne généralu cocaïne la ak yeneen général yi ak le DG de la police Bokar Moussa Yàgg mussa Bokar Yàgg whatever xam nañu leen on vous connaît xam nañu ne ay dóorkat ngeen non pas trente tonnes trois virgule quelques tonnes mais euh, def nañu quatre saisies trois saisies ci benn mois bi non pas trente tonnes pas trente tonnes grand c'est trois virgule quelques tonnes si je ne me bu fekkee man maa juumul parce que dama bëgg am lu leer di wax lu leer trois virgule quelques tonnes et c'était plus de mille milliards est-ce que xam ngeen ne ñii ñu ko seqal doomu aadama yii ñu ko seqal ay reykatu nit pur et dur lañu ay reykatu nit xam ngeen président Guinée saawo bi Umaru Sissoco Embaló coup d'état yi muy montelu yëpp yéen xam ngeen ne kooku jaaykatu drogue yi gën a mag ci àdduna bi moom mooy seen chef xam ngeen ne Sissoco Embaló moom mooy jël drogue bu ko bëggee dugal Sénégal pour ñu tas ko ci marché bi dañ koy jàpp buñ ko jàppee dañ koy jàpp jàppalu mais policiers yi Macky Sall la ñuy liggéeyal ak gendarme yi ñu jubadi ñi Umaru Sissoko Embaló ak Macky Sall di les meilleurs amis ñoom ñaar bu leen fàtte ne Umaru Sissoko Embaló c'est un déglu leen ma un membre fondateur de l'APR président ki Guinée-Bissau bii ngeen di gis nii Umaru Sissoko Embaló c'est un membre fondateur de l'APR maanaam ñi tëgg APR Umaru Sissoko Embaló ci la bokk parce que moom jaaykatu drogue la woon moom moo doon xaalis ñii dañuy indi xam-xam ñii indi lii amuñu sax xam-xam waa APR moom waaye Umaru Sissoco Embaló bokkoon na lan moo tax ngeen defee ne makki Sall ngawte ngawte nguur gii ba léegi nangu koo bàyyi lan moo tax ngeen yaakaar Macky Sall dafa ubbi ay bunt yu bari Macky Sall dafa ubbi ay deal yu bari makki Sall dafa nekk ci problème yu bari makki sàll dafa jaxase lu baree baree baree baree baree loo xam ne tey moom ci boppam. xamul naka la ci génnee Macky Sall li mu jaxati si li mu jaxasi Sénégal daf ko ëpp doole li mu jaxasi senegal daf ko ëpp doole moom ci boppam fi mu ne sama benn xarit daf ma bindal tey mu ne ma na lii dama koy liir ngeen reetaan mu ne mu ne ma déglul mu ne ma euh, xaaral ma ne kii waaw je fais un un petit direct là maa ngi ñëwaat ci yow dégg nga baal ma de dégluwuma sa message bi sax naa ko déglu nii léegi am doing a little live dama nekk ci benn direct bu ndaw rek maa ngi ñëwaat merci est-ce comprendre nga li may wax ngeen déglu ma Macky Sall sama xarit bi dafa ma bindal lu reelu ndeysaan mu ne ma mu ne ma Macky Sall latest rotten egg mu ne nen bu nëb Macky Sall bu mujj bi is to amnesty maanaam jéggal boppam under the guise of granting amnesty to the thousands of hostages mu ne en le faisant moom nee na day grante day granter amnesty tous ces otages politiques qu'il a ci année bi passé this accompanied with a hostage musical chair game mu ne Macky Sall amnistie bi daf ko jéem a profité waale ne moom ñi mu jàpp otage ba pare ses otages par euh, en au passage ñu ne Free Mama Amidia ndax Mama dem démb yéen ñëpp dégg ngeen ñu ne mi ngi hôpital euh, Dantec la woon ah Dantec lañ ko yóbbu. Mama Amidia Mama Amidia Dantec lañ ko yóbbu ndax suukaram dégg naa moo yéeg ba jaggi dayoo yaayu jàmbur boobu amul woon jabet bi muy dugg ci kaso bi créel nañ ko jabet voilà gars yi je vous euh, reviendrai un peu plus tard <coughs> dama am benn réunion bu urgent bu ma war a fekkee incha allahu rabbi dès que possible je vous reviendrai merci beaucoup dinaa ñëwaat.